arbitre sifflé dem nañu ardo ba jëwaat 7 onze 11 minutes 7 heures 11 minutes nañ timis ba noppi gaaw leen balaa gee du ñu fi fekk ñaari 10 minutes la ñu daal di dem mi-temps premier 10 minutes bi la ñu nekk Kalmandoor ak Caatu Waalo xeex nañu dem ardo ñëwaat combat bu saf sàpp neex xeex nañu bëri nañu attention Kalm da yoot Kalm moo gën a njool les gars ma nekk école de Boy Niang caatu waalo écurie waalo bu ñoom Alioune Seye bu ñoom Lac de bu ñoom Liiru ñi ngay leew ñoom ñaar booy xool Calme Ndour dafa naan teg parce que caatu waalo dafa nekk mbër bu rabe mbër bu sob mbër bu bëri feem moo tax calme euh, da daan teg parce que défaite la fa jëlee woon jiital pied gauche loxo gauche Caatu Waalo pied gauche loxo gauche Caatu Waalo mi ngi def ay déplacement latéral côté ndeyjoor arbitre nee na ko taxawal bàyyil daw bi arbitre mi ngi ëffal nee na ko bàyyil daw bi man bëgguma kuy daw dama lay jox carton jaune Caatu Waalo def na déplacement côté lu gauche latéral ay latéral lay def saawaay da ko tiim sut ko loxo sut ko ay tànk léegi léegi léegi léegi mu mbaj ko astafurlaa léegi mu sox ko <laughs> léegi mu sox ko caatu walo déplacement latéral gauche ajal say loxo balaa mu lay pes astafurlaa balaa mu lay dóor kurpañ léew too léew too nang nang naxante yàlla man buñ fi door kenn sax mu këpp ci suuf ñu ngi lew too wala garaam mbañik ma ngi koy yoot rek mel ni ku bëgg a jàpp sàcc même ne côté gauche ma ngay dox ci kawam ma ngay avancé de te yëgu ko Calme Ndour mi ngi avancé woon léegi sànni na waat benn gauche day dem day dem day dem moo war dem moo war a xeex moo ko sut te moom moo war a jël si am lu mu soxla am lu mu war a wane Calme Ndour sànni na waat gauche mais déplacement wu caatu waalo moo tax benn du ko dal te it mi ngi xool ay laay lay la soobu na way yaay door mu wàcc woo yéegam yoo door mu wàcc eh eh eh eh attention door mu wàcc attention caatu waalo attention caatu waalo Calme moom caatu waalo du ko bëgg a nax de sept heures quatorze minutes daa mën a de Calme ay uppercut laa gis muy dóor et il est concentré wu na bu baax a baax a baax combat bi day jéggi-jéggi nga gis ay étincelle tras tras tras étincelle yi di tàkk njool laak ngàttaan kee dafa rabe sob parce que loolu moo ko war ci kombaa bi warul taxaw warul toog warul tëdd waaw warul taxaw waaw di def déplacement rek jaaxal ko rek jommal ko di dugg si yi di génn Calme Ndour mi ngi dox ci kaaw kawam tëj na ko tëj na ko mi ngi koy xool léegi mu sànni benn gauche léegi mu appel ko léegi mu appel ko woo ko ci xeex mais est-ce que Caatu Waalo li mu bëgg dana ko réussir daf ko bëgg a juumloo woo ci xeex juumloo ko loolu la bëgg moo tax Calme Ndour nee na teg ànd ak ànd ak ak sérénité concentration da kay yoot andi ko ba ci biir géew bi Caatu Waalo ndaanaan la dagg nañ léew too bi ñoom ñaar ña ngay xoolante xoola nim ko tiimee rek comme potu làmp ak benn gaas <laughs> comme ba nga teg benn potu rek teg benn gaz ci wetam attention waaye gaz bi du ñeexu ñebee sànni na ko benn góos jàpp na ko ay waaye tar na ko ay waaye ay na ko daan ko jeex na jeex na jeex na yoot na ko ba daan ko ba toog ci kawam loolu la ci bëggoon yoot ko ne ko niip daan ko toog ci kawam jeex na waaw waaw lii rek la waroon bëre. Calme Dóor qui se relance.